original ay waay fii pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew-xew. jërë nga jëf mbokki Baol TV Baye Fall Eh, ñu ngi amaat mbégte nag bu baax daal di amaat contentement bu baax a baax a baax eh, mbokk yi nag ni ñu leen ko waxee rek eh, ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci Baol TV ñu nag yéen nag bu wàcc ci wàllu làmb ndax am na affaire yu am solo yoo xam ne nii nañ ci ànd ak yéen baay Fall bi Badou Mbaye bu jeexee jeex na waaye mbokk nag maa ngi caaroy géej bu ñu nee caaroy géej nag ne làmb tey am na ñu xam caaro ñu bari làmbaa tax ñu xam ko muy muy dëkku culture di dëkku ndaanaan Eh, di dëkk boo xam ne nii jàmbaar yàgg na fee génne eh, mën nañ ci lim ñu baree bari bari ndax am naa sama beneen dijaay daf ma koy wax eh, nee na fi ay magu làmb yu bëri fii lañ nekkoon ci caaru géej kon dëkku champion la waaye tey mag ñi seen wàll wéy na am na ay xale yoo xam ne nag ñu ngi fi di wane seen bopp ci wàllu làmb waaye tey nag dama jël si koo xam ne nii ab cëggin dafa yombul waaye ndaanaan la ci wàllu làmb def na lu nekk ci wàllu làmb man su ma neexee ma ne làmb sax moo dëgg waaye bu làmb waxoon dëgg kon mën nañu wax tey moom ak Balla Gaye wala ñu wax moom ak mooduloo ndax li mu def ci làmb bari na maa ngi koy rappel mas naa seenaan mbapatam loolu tëngeet la woon boobu gën naa nekk xale mu daan ñëpp dem final diggante mag Modou Jaxate xam naa su ma waxee loolu dina xam ne man seenaan naa ko muy ko mën a bëri macha allah lépp loo soxla ci mbër mu ngi ci moom li ma gis ci moom ci xeetu bëri et ci mbër yi ñu koy gis sax bariwul waaye nag làmb dafa day waar muy Ameth Deme ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax a baax a baax a baax e di mbër mu mën a bëre di mbëru waada waaye nag gëj nañ ko gis nam ma nañ ko loolu e xamuñ ci lu mu nekk ay e amateurs yi bari nag di ko réclamé ani Ameth Dème fan la nekk ak ci lu nekk comme Baol TV fi la lépp di leere man a xaaral ma dem xooli Ameth Dème lu mu nekk ak lu waajal su ko defee nag bëggaay ma nuyu ko rek ma bàyyi ko mu nuyu ko mbokk yi seetaan Baol TV yépp Ameth maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax eh, maa ngi lay fay Badou Mbaye vraiment di am mbégte ah, nga ñëw fii yi ànd ak ki nga xamante ni mooy Baol TV vraiment am nañ si mbégte bu baax a baax vraiment comme niñ koy waxee rek Badou Mbaye Baye Fall bi ñu ngi lay ziar bu baax di la béggee waaw Ameth dem nag yaakaar naa ne fan yëpp gën na gëj naa génn mais gëm naa ne luqi nga ko quoi génne nga ko kon nag maa ngi ziar ñëpp di ziar say téléspectateurs waa Baol TV di nuyu nag supporter yëpp nam nan ma mee maa leen raw waa Thiaroye Géej maa leen di béggee jaajëf. gars yi dégg ngeen ki nga xam ne moom mooy Ameth Deme Ameth dem ci loo nekk gars yi ñoo lay réclamé Ameth Deme ci la la nekk ak lu muy waajal. Ameth Deme moo ngi fi ah nekk sur xom comme ni ko gars yi di waxee yaakaar naa ne saison bi passé jotu noo bëre parce que ñoo ngi doon préparé di waaj di am yaakaar mais nag li naan ah, jaam pexe mais yàlla ak dogalam kon donc loolu la yàlla dogal ba bëreewuñu saison bi passé mais nag ñoo ngi am yaakaar saison bi parce que ñoo ngi suñu ruq nag di waaj bu baax a baax pour defar retour comme li may wax rek retour de gladiateur bii di ñëw incha allah du yomb. Eh, ngay sinaan Balla Gaye wala ngay sinaan Modou Lo eh, ak position bu mu nekk eh, nga xam ne ñii ëpp ñu la daray làmb lan ngi yëg. waaw li may yëg comme li ñëpp di yëg rek parce que ku sañoon rek fan toll la nga fay toll yaa ngi dégg damay yëg jàmbaar gi ne si ñoom xam nga gaynde gi nekk si ñoom vraiment nekk na si ñun mais tamit loolu la yàlla dogal man na ma wax ne yeexaay bi comme ni nga ko waxee rek fii gars yooyu toll muy champion yooyu ay Balla Gaye ay Modou Lo ñun waroon nañ faa toll mais nag loolu la dogal. parce que làmb tamit chance la quoi chance la ak wërsëg peut-être nag suñu chance moo nekkagul ci làmb ak wërsëg bi quoi mais nag yàlla moo ngi ñuy suturaal bu ñuy bëre di am ay ndam parce que ku def 23 combats am 3 3 défaites kon donc euh, am na ñu nekk si kaw ñu xamante ni palmarès bu mel noonu amuñu ko quoi mais lool lépp sant yàlla. des fois mooy dégg yenn ci amateur wala yenn nitu làmb yi ñu leen caare yi am na ay mbër yu mën a bëri waaye dañuy foo làmb am itam bokkul ci ñooñu. non non non caare moom duñ fooye làmb peut-être danoo amul chance mooy li may wax rek chance la quoi mais caare duñ fooye làmb ku ñu xam-xam ku ne ñoo ngi liggéey matin soir li gars yi di entraîné dañuy entraîné ko raw kon donc fonk nan làmb te duñ ko caaxaane cadre de sens la rek làmb moom dafa am sens quoi. ci côté sens boobu ngay wax ndax bu ñu seetloo caare yi seen combat wala seen événement yi gën a mag yi caare yi gën a soxla yëpp ci ëpp caare dafa ko perte lan mooy bi dëgg. noo dëgg la combat yi nga xam te ni la combat nga xam te ni da nga see war a génn yooyu danga nga koy ñàkk mooy li ma la wax rek sens la rek mais danga nga def li nga war lépp da ngay jël sa bakken bi nga teg ko si si wàllu préparation bi def lépp mais boo ñëwee doo xam ne lay ñàkkaloo kon donc man damay jàpp ne danoo ñàkk sens rek mais bi dee jàmbaar gi ak gaynde gi lépp moo ngi caaro yi léegi caaro yi ak làmb waaw caaro yi ak làmb moom du ma si jóg que boo xoolee comme ni nga ko waxee am na ñu fi jiitu woon mooy sunu papa ak sunu maam yi ñoom sunu maam Modou Kan Ndiaye ay sunu maam Baye Thérèse Ndiir ah moo Modou Dieng ñooñu xam nga ay référence la ñu xamante ni dañuy dañ ñu koy expliquer kon toog caara yi bon mënta ñàkk mbër quoi. Mhm. mais am ngeen ay jafe-jafe ci biir làmb. waaw am na ay jafe-jafe parce que tout le temps dañuy am ay problème yaa ngi dégg man am naa fi problème moo xamante ni da def say recours mais du la faale ay Baye Million 2 ah ay ay ay ma ñoon 1 si boppam ah ay ay Xaadim Ndiaye numéro 2. mais comme li naan bon il faut nga am wéeruwaay peut-être. waaw Baye Mandione ak Modou Lo ah, ah Khadim Ndiaye numéro 2. waaw Reug Reug Sa Thiès Khadim numéro 2 ak ki dëkkoon Yoff Malick ñaa voilà yooyu yëpp man ak Jackson. xam nga yooyu yëpp mais du mujj fen day mujj nil kon damay jàpp ne rek kon li gars yi di wax dëgg la quoi hmm. affaire il faut nga am foo wéeru. ñun nag peut-être danoo ñàkk a wéeruwaay moo waral loolu. yow kaa yi yëpp kaa yu yëpp amul benn bu si caale amul benn bu réussir amul yëpp moo lii xanaa bu bàyyi ma ñoon numéro 2 parce que defoon na fi recours ñu defal ko sans verdict boobu daal laa mas a fàttaliku ne moom moo fi mas a lii quoi ñu dugal fi recours mu réussir. mais mais kese kenn kenn kenn delloo ko. waaw waaw noo boobu moo kële woon waa kees bi. mooy waa kees bi mu bëri loon moom la def ah, sans verdict. voilà mais combat bi passé ku ne gis na nu mu demee. sonn na si lu ne def na ko téye nañ reliquat xam nga mooy loolu daal affaire daal day na waar. <laughs> kon daal caare dafa amul bàjjen amuñu di jaay ci làmb. noonu la fa demee nag amuñu bàjjen amuñu di jaay amuñu maam amunu dara mais nag ñun ñoo ngi demee sunu ngor sunu fulla ak sunu fayda kenn duñu jam naane mooy li may faral di wax rek ay gladiateur ñoo fi dëkk ay bañkat ñoo fi dëkk tout le temps nag man nan duñu xeex mais fulla jeeg fayda moom kenn duñu ko ëppale. mais mais promoteurs yi ñu ngi lay démarché. après ma yi ñoo ngi woote léeg-léeg ma déggante ak suma ménagère ñoo ngi woote mais léeg-léeg dañuy woote après doo leen déggaat mais nag ñoo ngi toog daal di xaar mooy li may wax rek lu jot rek yoom man daal sama philosophie lool la yàkkamte yàkkamtewu ma dara parce que sama jëbi li si yàlla bind ala kulli àll dinaa ko am incha allah. léegi ñëw si ñaari dernier combat yi nga xam ne si nga jóge eh, diggante ak Jackson gis nañ coow lu ci xawoon eh, muy coow lu kat yaakaar naa ni defoon nga recours mujjewul fenn yaa ko wax léegi. Eh, sa benn combat bi ñu jógee mooy sa diggante ak jëmteer yi eh, ñu gis eh, waa jëmteer kii gabaar sin waaw gabaar sin waaw yaa ko dóor daanu waaw mais sa diggante ak jëmteer yi ñu gis ñu gis Ameth Dème vrai Ameth Dème bu joxe li mu am lépp lépp lépp lépp lépp mhm. waaw dëgg la am nga Ameth Dème moom gladiateur la comme li may faral di wax rek combat moom dama koy teg si bakken bi parce que sama combat ak jëmteer yi ku ne gis na ni mu li ma entraîné si combat boobu man gëm naa ne masuma kaa entraîné si combat li ma si wàcc masuma ko wàcc si combat mais xam nga rek ndog-ndog day am vraiment si sama dernière préparation yi si la am fracture si baaraam yàlla xam na ne mën na bëgg sax ñi ñi nga xam te ni ñoom laay liggéeyandool muy waa écrit bi staff bi ak tout parce que combat bi def 8 mois. kon kon Ameth Dème bi muy bëri ak jamteeri blessure la bëri ak moom. blessure la àndaale parce que entraînement laa doon bokk su dóor sans def lii bi def fellir mën na bu ñëw parce que combat bi def mois dem nañ ba ñun deseetul dara. tey bu ma bu ma ko bu ma ko rapporté woon rek mën na ma wax ne bon ñun ñooy sonnaat quoi ma ne nag naa dem lu métti métti jëm téeri su ma ko daanul du ma daan si biir combat bi wax ma ne ko mbër combat bi su la daanul doo ma daan parce que xam naa ne moom daanaan la te jàmbaar la te man wax dëgg fa yàlla jom laay laay demee parce que boo xoolee moo ngi dóor am na ku ñuy rapporté naan am na lu ko teree bàyyi loxoom yi xam nga ñu yaakaar ne daf maa jàpp si gàllaaj ak yooyu non non jàpp ma si gàllaaj loolu rek moo ma gêné woon parce que première comme première bi ma attaqué ma dóoree rek la baaraam bi yëngatu instant boobu maa ngi bëri ak ak douleur mais nag teewul dama koy gérer rek man gëm naa ne jour bii duma si daanu lu metti métti métti dinaa ko gérer du ma si daanu. kon Ameth Deme daal bu ko dara dalul woon. gëm na di moom a jëmteeri. non ngeen gis combat bu neex wallaay di ngeen gis combat bu neex parce que kuy bëree benn loxo. xam nga loolu tamit di bëreeg champion mel ni jëmteeri poids lourd mel ni jëmteeri ngay bëreeg moom benn loxo di ko tenir non bu yàlla defoon lépp nice kon daal gëm naa ne combat bu neex dina am. Suwa Jackson lu tax jëmteeri. te xawoon xaw a gëj ci làmb tuuti e ñëw jël xale boo xam dafa nekk ci yoon soit boobu lan la woon. jëm téeri waaw xam nga jëm téeri champion la boo gisee gars yi di ko fi bàyyi di ko teggi loolu c'est man bi ma ko proposé te jëm téeri seetaan naa combat am yëpp muy doon xam nga mu daan ay champion ma ne mais pour pourquoi pas duñ jël jëm téeri xam nga parce que instant boobu promoteur bu ma woo rek moom la may proposé lu tollook ay 4 promoteur ma ne leen na leen ko jël na leen ko jël ñu defal ko bagage mais nag malheureusement mu demee noonu champion la. Mhm. sa diggante ak Jackson coow li bari woon na ci trop trop trop. waaw Jackson tamit comme li li ñuy faral di wax rek xam nga xale bu ne si yoon rek à chaque fois dañuy xool nu ko jàllalee parce que combat boobu bon combat boobu ñëpp gis nañ nu mu demee parce que ñaari jéel la mënta am si benn bés comprendre nga mënoo daanu ba pare daan xam nga après ñëpp man man na maa ne ñun si yoon bi sax lan nu doon envoyé vidéo yi kàddu yi mu def xam nga mais nag dañuy jàpp ne nag la si yoon dañ koy jàppale noonu lañ ko jàppe rek parce que ñëpp gis nañ ni mu demee. ah def nañ suñu recours mais après mu mujjuwul fenn def kat appui yu leer nañ xale la nag sampion la ndaanaan la am na avenir mais teewul tamit affaire nañ koy teg si yoon quoi. Eh, wala xale bu nekk si daa war a daanu. voilà noonu ñoom nag loolu lañ jàpp nag xale bu ne si yoon pour ñoom war a daanu bu ne si yoon nag dafa war a daanu parce que ñu nit gënuñu noo bëgg dara quoi combat boobu boo xamante ni ñu dañ ko fonkoon mu nekkoon combat am ni tamit dañ see waroon a jàll gis nga foofu tamit ñu ñàkk fa sens affaire bi taxawaat. mais mais action bi action bi 4 appuis bi di amee. Ameth Deme yëg na ni Jackson def na 4 appuis. waaw yëg naa ko yëg naa ko parce que à chaque fois rek gis nga maanaam action dina am mais yow sa xër moo lay yóbbaale ba ngay bëgg a daw di eggaleeg yooyu far yàlla parce que bi mu demee rëpp man maa ko njëkk a jógaat bi bi ma jógaatee man maa ngay dawaat di laawaat pour dalaat ci kawam xam nga si la dawaati jóg si la ma pekete fekk ñàkk naa équilibre mais tamit dama naan loolu la yàlla dogal rek. Mm-hmm. mais mais ba doo def comme def cest à loolu ci sama ci sama palmarès la bokk gis naa leen mbër yu bari dañ koy def mu da ngay benn combat boo xam ne kii day am victoire kii am vit kii kii am victoire. waaw mooy li faral di wax rek man man man damaa jàpp daan Jackson yaa ngi comprendre boo xoolee sa sama 23 combats yi su ma koy wax tey su ma ko si boole woon dama naan 24. comprendre nga dama naan am naa 24 combats mais à chaque fois dama koy jël tege ka ne mais am naa 23 combats 3 si samay victoire boolewuma ko si samay défaites comprendre nga. 3 défaites yi kan la. trois défaites yi Malaw Seras moo ma daan hmm? euh, Aline Seye 2 ak ndam si yàlla si ki dëkk parcel Moussa Diouf ñoo ñoo ma daan te te gis nga combat tey su ma su ma toogul wax ka kenn mën la wax ne kii moo daan Ahmed Deme comprendre nga kon donc war na noo xam ne Ahmed Deme champion la parce que ay defetam am bëriwul te jegantewul quoi te boo xoolee ñi ma daan loolu yàgg na. est-ce que Ahmed du fàttali moo koy saan Baol TV ñi mu daan. waaw ñi ma bëreel daan leen daan naa di Ndiaye kii nu tuddati waaw même Mamadi Ndiaye sax bëri nan daan naa ko daan nan ki nga xam te mooy super jamono oh, daan nan super jamono jëla bu rëy ba nga xamante ni mooy brusili hmm? daan nga wax naa Ousa ah. daan naa usaasaw Sow bon bëri na combat xamante ni daal tey dama kaa waroon a bind rek tagal la ka nga lim ko eh, eh, brusili su ma jubul benn defar rek la am ci ram muy yow de waaw brusili peut-être benn ah peut-être mais daal daan naa ko jële bu rëy ku toll ni birisili xoolal birisili bi ma ko daane ame dem bi mu ko daanee daa toogaat saison boobu sa bëriwul ndax xam nga dan may ñu bëri la leen proposé Ahmed dem mais du nangoo jël Ahmed dem da ngay obligé naan est ce que du ma bàyyi làmb dem xool leneen loolu tamit xam nga ngay waar daal. dana waaraan bi kay en tout cas en tout cas làmb ndaanaan la ci làmb en tout cas am na lu mu def ci làmb moom Ahmed Deme et eh, wax naa ko bokk na ci mbëri du mën a caare waaye bokk na ci mbëri dàq bëri ci làmb eh, kon li des nag mooy promoteur nañu ñëw eh, ñu jox ko wàcc et ndax moom mbëru amateur la te amateur dañu bëgg ndaanan nañu dañu bëgg ndaanan bi bëri kon gars yi nañu ko bàyyi xel ñu ñëw tëgal ko ndax làmb ci la bokk te daa war a bëri mais am dem pare na pare na pour may sens wala pare na pour bëri gars yi nga xam ñu dafa yoon waaw mais bien sûr xam nga bi ma waxtaanee ak sama gars fi mu ne nii damaa jóg defaraat beneen carrière bu bees li ma fi defoon jël naa ko gas ba mu suul ba mu xóot ma suul tege ka nee fas ne defar nag beneen carrière bu bees boo yi nga xam te ni ñooy jeune talent ni ñoom ñooy door a jóg ah def nañ fi dara am nañ mbooloo noo ku ñëw ma bëre ak amul benn problème je suis pour may booy sens. daanaka léegi booy yi mesure pratique am nañu ay combat daanaka des na ay benn benn nag. waa des na ay benn benn mais nag booy bu pourbe booy bu pourbe nag am mbooloo nga joxe cër non moom may la sens amul point comme da nu maa jël. ma may booy chance rek loolu dara. kon diggante Mor Kankam ak Diop de bu ñu taxalee ko woon ku bëgg foofu man ko may chance. amul benn problème ku ñëw rek ku ma promoteur yi proposé rek ma may la chance incha allah. ah dégg kon kon promoteur yi nag eh, ñëw leen ngeen jox Ameth Deme li nga xam ne moom mooy combat ndax moom ci làmb la bokk am na cër waaye Ameth coow coow li nga xam ne moom mooy xew ci làmb yéen nag waa gi dafa mel ni léegi làmb gars dañ leen si xaw a génn tuuti quoi. Mm-hmm. Eh, li bi ñu ciy tàmbalee nag mooy mooy coowul meilleur lutteur actuellement nag xaw na jur coow ci làmb eh, ku nekk rek da ngay wax sa xalaat eh, Ameth dem eh, yow tey bu fekkoon ne yaa joxe meilleur lutteur en tant que nitu làmb kan nga jàppale moo gën a mérité waaw tey xam nga <laughs> xam nga tey booy joxe meilleur lutteur daanaka mbërëb nag ay champion la du question ko xam nga rek mais tey boo pour boo waxee rek am na ñuy gisee nii am na ñuy gisee nee mais nag dañuy wax comprendre nga man tey bu mënoon joxe meilleur lutteur man zéro ko laa koy jox. yaa parce que boo bëggee dégg-dégg Zarko def na fi loo xamante ni ah yombul de waaw ah, yombul de ñun ñëpp nag ay mbër lan ay champion lan mbër mu toog wéet li nga xam ne Zarko mii vraiment yàlla dimbal na ko te wane na lu xamante ni non yombul vraiment. si ñaari saison nga tegle si ñaata combat cinq combat xaw ma six. waaw ah, yo yo yombul quoi ñëpp nag ay champion lan merci beaucoup. daan leen ku nekk ak nag nim na daane ak ñaabu ndaw waaw boo xa jël xale yi nga xam ni nag ñoo nekk si yoon. ñëpp ñëpp mu daan leen ak façon bi mu leen daane xam nga ay aada faas xam nga kon donc man su ma doon joxe moom laa koy jox quoi xaw ma nag fi mu ne nii kan lañ ko jox. Modou Lo. ah ok Modou Lo lañ ko jox waaw champion la champion la ndaanaan la moom it xam nga freiné na fi ñaari xale yoo xam te ni buñ ko ko joxee tamit mérito na ko vraiment man it tey même ba joxe daal man Zarko laa koy jox. Eh. mais mais anam bi ñu ko joxee eh, waa Lutte TV ñoom ñoo ko jël tànn est-ce que lit TV ñoom ñoo war a joxe meilleur mais meilleur may litre de Lutte TV daaw ko joxe wax dëgg fa yàlla xaw ma kat ma ko daan joxe am na buñ fi gunge woon rek rek ñu joxe ko sooraano xaw ma CNG la xaw ma ñan ñoon daal daal xamoon ñooroon ñooy joxe may litre waaw mais bi dee ay Lutte TV daal kon donc yeneen yeneen siid yi nañ préparé ku mel ni Baol TV na préparé ut ut ut ut mbërëm <laughs> jokk jokk may litre xam nga ku mel ni yeneen siid yi tamit nañ préparé kon may litre yi nar naa bëri nag <laughs> mais nag noonu la quoi affaire moom vraiment buzz la boo xam te ni day neexal quoi. mais mais Ahmed est-ce que ni ko waxee mériteur eh, bu jotee presse bi ànd ci ak làmb ànd ci ak site mën na nekk waaye est-ce que des jotul eh, ñi nga xam ñoo nekk ñoo nekk tëdd fil ci écrit yi comme ni comme ni ñu koy defee ci FIFA eh, affaire vote la. capitaine yi ak ñu si dañuy ñëw di voter est-ce que jotul ku mel ne Ahmed Deme ak ku mel ne kenn ku nekk ñu laal xaat ñu def ko ay vote noonu la war a mën a demee sax mériteur dañ ko war a def ay vote yaa ngi bu xoolee li nga xam te ni mooy cinq mbër yi gën a pourvé yaa ngi dégg ñun ñi nga xam te ni ñooy waa presse bi ñi ñi ñi ëmb làmb daal xam nga ñu def kay vote affaire daal foofu lay gën a amee sens quoi te foofu nga si gën a yege sa bopp quoi waaw bu nekkoon ay vote moom dina nekk loo xamante ni xam nga bon kun ko jox rek di nga xam ne jox na la loo xamante ni mérito nga ko quoi eh, bu nekkoon ay vote dina am solo loolu amit dem wax eh, coowal ampleur ak roi des arènes waaw mais loolu damay dégg gars yi di si wax rek mais loolu dafa nekk loo xam te ni luy avancé loo làmb la rek luy yokk làmb la rek. ah kon Ameth Deme na ci. ah bien sûr a d' accord des arènes ak ampleur affaire bi ça fait am na différence si yaa ngi comprendre que boo xoolee sax ñu bëri ñoo ngi bëgg sa nekk ampleur parce que li si nekk parce que roi des arènes li nekk si ampleur daa waroon a nekk si roi des arènes mais roi des arènes tey dan la koy jox ñu jox la benn sappo boo xamante ni day def weer sa kër sa xollee ko ñu jox la siège boo xamante ni xam nga tamit mooy loolu amul sens kon da nga naan empleur bi mooy ëpp sens quoi kon donc lool lépp avancé làmb la gars yi bu ñu mënee créer leneen ak leneen sax mu dugg si làmb mu gën a neex. kon bu ñu la tegaloon ampleur ak roi boo ci bëgg. non ampleur bi dem bëre ji waaw. Ah, ampleur ah. roi des arènes tour la rek bu lay jox xam nga. xam nga mérite la nag ñu bëri bëgg na noonu nekk roi des arènes. ampleur moom moo am sa xel. voilà ampleur boo xoolee li nga ciy gëñee lépp xam nga loolu nag roi des arènes da kaa war a am roi des arènes da laa war a fay ba kara koy ñàkkaat. comprendre nga kon donc dina gën a am sens quoi pour man. Eh, kon yow gis nga ne lii mënul yàq làmb. non non mënta yàq làmb day gën a avancé làmb bénéfice la si làmb quoi affaire bi daal gagnant la quoi affaire pour man mais amul pertement quoi. Eh, da ngeen amee dem nee na gagnant la ci làmb eh, mënu mënu ma ñëw fii seet waxtaan ak yow nag du ma ci dugg ci li nga xam ne nii moom moo xew fan yi yàggul ci làmb mu nekk xale boo xam ne nii coow làmb topp muy Ada en tant que frère. boo amul loo koy wax lan lay doon. Ada Fass <laughs> man moom bu may seeraat Ada bon man dama naan xale la rek comprendre nga peut-être nag am na fu muy toll yii yëpp dina ko bàyyi parce que moom dafa war a xam li mu yor quoi. parce que chance bi ko yàlla may ak wërsëg bi ko yàlla may si làmb bëri na ay moromam ñu ne seew pour am ko comprendre nga loolu nag daf ko war a xam mu téye ko quoi mais dañuy jàpp ne rek xale la yëfi xale lay def bon. te gëm naa ne lu mu gën a dem nii dina dina gën a lii quoi seetaan naa benn interview am vraiment danga nga koy ñeewante sax dangay xam ne kii xale la quoi mais dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla yokk ko taxaw vraiment mën a soppi lu bëri si moom quoi. est ce loolu day am léeg-léeg succès dina la sonal ba nga xamante ni mais loolu lépp mooy li ñuy wax rek xelu xale beeg xam nga fuggu xale beeg yooyu quoi xam nga xale la nag xale la yàlla may ka li nga xamante ni moom la kon donc nañ ko ñaanal yàlla rek yàlla jàppale ko peut-être nag dina changé mais nag moo ngi def daal yëfi làmb parce que man gëm naa ne bon coow yu nii moom moo ko jik quoi parce que tey bu dalee rek man na maa gëm ne riir wu mu am ak mbooloo mi mu am dina wàññeeku quoi peut nag lii la ko yàlla moo ñaale kon yàlla na ko yàlla lafal cet rek defal ko jàmm. nan ngeen di wàccee le premier janvier. le premier janvier ah wàccaay bu metti rek ñu ngi si wàccaay yu metti vraiment di ñaanal sunu rak vraiment sunu. ki nga xam te ni man na maa ne sax sama doom la xam nga parce que boo xoolee cool yi day bëri si suñu côté fii mais ñu bëri xamuñu mais nag amul problème làmb moo mel noonu parce que ñun liñ koy yéene liñ yéene suñu bopp si jàmm rek lañ koy yéene muy rek rek vraiment ñoo ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko wér vraiment mu préparé si combat bi si jàmm yàlla may ko ndam vraiment. yaa ngi koy dégg wala yaa ngi koy gis. waaw bi mu demee delloog léegi yàggul parce que bu ñëwee tout le temps dañuy gisante fii quoi. ñoo ngi gisante vraiment saa bu ñu gisante dina taxaw ñu waxtaan ñu dénk kay kàddu moom it xale la rek comme léeg-léeg gars yi li ñuy waxee si wax jeeg yooyu moom it nan jàpp ne xale la lu mu gën a dem bon xel mi di gën a màgg kon donc yàlla na ko yàlla defal jàmm combat bi mu wàcc ko si jàmm yàlla may ko ndam. Eh, sa xel ci combat bi ak ak bokk Sa Thiès eh, ba la sa xel gën a dal. mook Sa Thiès amee ah, xam nga moom li may faral di wax rek elleeru gumba la. yaa ngi comprendre moom xàmmewul ñax mu wow xàmmewul ñax mu tooy yaa ngi comprendre ñun combat bu mu am sunu xel day dal parce que moom it ku ñeme liggéey la xam nga ku bëgg a làmb la ku ko respecté la looloo tax wax dëgg fi yàlla bu amee combat duñ si am doute quoi saa bu amee defee rek mbetteel lay doon si ñun. Eh, dafa bëri ak Bombardier automatiquement ma ñëw fekk la ci fi nga nekk nga ne ma Reug Reug warul xaar benn mbër ci làmb. effectivement te wallaay moo Bombardier damaa bi muy waaj a dugg damaa ñëw ma ne ko eh, bul ko rikileel benn tànk. ñëpp a ngi taxaw ma ne ko bul ko rikileel benn tànk avancé dem si kawam nga jàpp ko daan ko parce que xam nañ li ne si moom moom bu amul lu muy hésité si mbër rek mbër mu taxawal moo la man mais léeg bu calculé rek mooy andi xam nga yéen a jeexi jaaxa yi yaa ngi comprendre naan boo xam te ne ñun ñoo ko yar xam nañ ko bu baax xam nañ li ne si moom capacité yeeg xam nañ ko kon donc loolu daal lañ koy dénk bu taxawee si làmb na gëm boppam gëm ne xolal ku mu taxawal rek daa a dox si kawam jàpp ko daan ko loo koy moytuloo ci Boy Niang amee ah, Boy Niang amoon na luñ koy maytuloo xam nga mbër moom boo demee banaakaan maytul li maytul li yaa ngi koy xam nga hésité loo quoi moom li mu liggéey moom yor na doolee xale boo xamante ni kum dal sa kaw rek da ngaa war a ñàkk amul lu mu war a sóor mën naa bëre yàlla may na lool li ngay gis léeg ñu naan noon ni muy waxee nii nii nii moo gën a yeewu nit si biir làmb ak si lépp moo gën a yeewu ku yeewu sama rakkala nag léeg mu taxaw fii mu xam nga moo sëqatal ko fii xam nga mais nee naa ko yow dofoo da ngay dof dof lu kuy yeewu moo la gën a yeewu. mais dafay bëreex koo xam ne nii ndaanaan la ci làmb dafay bëreex koo xam ne mën naa ne pour man eh, ci ñiy rër ak bëreeg ñëpp mosul bëreex ku ci daax bëreex ak Boy Niang 2 muy mbër mu intelligent ba pare nekk xale ko moom ba pare jóge nag ci ci ci ci défaite war a jamaat ci beneen combat nu ko rër rek di di waajalee dëgg dëgg dëgg dëgg est-ce que combat bi eh, mënul mënu ci ñëw am ci am ci ay jeexi jaax ndax ki ngeen di bëri a bëri macha allah ba pare dafa am feneen fu mu demaat ci làmb waaw dëgg la am nga booy Niang moom champion la ndaanaan la te dafa nekk mbër mu am te ni mbër muy calculer la yaa ngi comprendre mais nag attention buñ fàtte ne Reug Reug ku daan ñëw si làmb fekk fa 1000 personnes façon nit ku ne yaa ngi dégg ak ku nekk ak ni ngay bëree kon donc man pour man Reug Reug Boy Niang war ko mën a jaaxal quoi boo bëggee dégg xam nga man daal loolu laa gëm. man su ma su ma déggee Reug Reug moo dàq bëre Boy Niang. non moo dàq bëre moo dàq bëre Boy Niang moo dàq bëre fuuf sax yamuñu sax. yee yamunu sax mais xam nga rek mbër moom làmb moom dafa doy waar làmb moom da ñëw ba si biir géew leneen xew si mais man gëm naa ne rëg-rëg non warta am lu muy sóor si Boy Niang warta am lu muy xalaat arbitre bu nee prêt non war naa mën a dem jàpp ko moom quoi Bécaye wax ci temps bi wala ñu continuer ah deux minutes loolu loolu loolu am na solo li mu dégg li mu wax ci ki nga xam moom mooy eh, rëg ak booy Niang en tout cas combat la bu am solo bëgg defee amee dem balaa ngay tàggoo ñu ñëw ci beneen combat lébu la ak bawol bawol muy mbéy guy gi ak Moussa Ndoye loolu nag eh, mu ngi war a doon le 10 novembre. noo gisee combat boobu. waaw combat bu neex la xam nga combat bés bu mu yàqoo sax dama ne woo combat mu neex yaaxu na mais nag peut-être loolu yàlla dogal ñaari champion la naa ah? waaw ñaari champion la muy mbéy guy gi ak Moussa Ndoye ah man de wax dëgg fa yàlla Moussa Ndoye nag laay ñaanal ndam waaw moom nag daay ñaanal ndam mais man gëm naa ne Moussa warta mën a cuune wala muy xulle ba mbay guy gi di am si moom dara hmm. wallahi azim parce que Moussa am na fit bi am na bëre bi am na capacité bi te am na sañ-sañ bi xam nga lan mooy combat bi arbitre bi mu dox si kaw mbay guy gi warta may mbay guy gi lu mel ni tarafal ani yow gis nga mbay guy bu baax waaw ah, dégg li ma la wax mbay guy gi gis naa ko mais Moussa Ndoye li mu liggéey parce man dama koy gis damay dajeek moom fi ni entraîné fii combat bi li si daj ak li mu si sonn non man gëm naa ne war tam may may guy gi mu xalaat. may mënul ëpp doole ci combat bi. non bu ko Moussa Ndoye ëppul doole mbay guy gi mënu ko ëpp doole ko wax parce que man gis naa Moussa Ndoye gis naa mbay guy gi. Moussa moo dàq bëri. non Moussa Ndoye dàq bëri loolu saful wax Moussa Ndoye dàq bëri moo dàq xeex parce que ñaari mbër yëpp man seetaan naa seeni combat ku nekk xam naa li nga mane xam naa li nga li nga manewul xam naa mbay guy gi mbay guy gi mbër la boo xam dafa gëm boppam mbër la boo xam ne daanaka léppam daanaka doole la boo xoolee diggante ak Marley jële bi mu ko daanee kenn xaatu ko woon waaw dëgg la diggante ak Marley moom ko ne gis na ni mu bëree parce que ñëw na xam nga imposé Marley lim lim lim lim liggéey mu wane ko quoi mais li si Marley du si Moussa Ndoye la ko si Marley du si Moussa Ndoye mhm. moom champion la ndaanaan la xam nga affaire moom léeg-léeg da ngay wax sa xalaat wala nga wax lii ñu ñu gisee ka neneen mais nan xam ne man Moussa laa faral quoi. mais su ma déggee dafa mel ni ni ni Ameth Deme di waxee mooy Moussa Ndoye mooy am euh, Mbaye Gouy benn sens ci Moussa Ndoye. Ah, mais mais mën naa am sens sax xam nga làmb la làmb moom dafa doy waar mais man sama xol ak sama yéene mooy Moussa Moussa Ndoye daal. Ah, ni nga waxee bu fekkee Moussa Ndoye moo ëpp doole. Moussa Ndoye moo dàq bëre kon Mbaye Gouy Gui amul sens. moo moo moo dàq bëre moo ëpp doole loolu saful wax moo moo dàq bëre moo moo ëpp doole mais làmb mooy li ma lay làmb la rek. làmb léeg-léeg xam nga danga ngay ëpp doole ñëw mu demee na neen mais man gëm naa ne foofu waru faa def erreur waru faa def waru faa fakkastalu waaw dafa war a ñëw exploiter li nga xam te moom la liggéey war ko may sam mu xalaat ndax combat bi mooy avenir am merci beaucoup avenir am la te combat bi dafa am lu bëri lu xamante ni non da see war a wane boppam pour effacer yooyu yëpp pour mën a dem si moromam mhm. jërëjëf loolu am na solo loolu ay ay kàddu yi Ahmed Deme la le grand champion et Ahmed Deme ma bàyyi ko rek Ameth lan lan nga ci war a yokk ak lan moo la métti ci biir làmb après nga tàggatoo. <laughs> mais làmb day wax dëgg fi yàlla làmb neex na quoi man dara ma wax dëgg fi yàlla làmb daal nan ñaan yàlla rek mu gën a mu gën a neex mu gën a xumb promoteurs yi gën a ñëw comme li may faral di wax rek waa sauvetage muy waa Alburax comme dañooy sauvé gars yi ah nan ñëw rek jox na si trois avance yi yaa ngi comprendre nan ñëw rek vraiment ñoom it oo nan sama ménagère ñoo ngi leen déglu yàlla baax na Assane tamit daana ma tëggal mais temps yi daf maa bàyyi mais nag maa ngi koy wax mu ñëwaat quoi. Assane Assane Assane asan joxal waa ji avance joxal waaj ji avance. waaw moom suma waaye la xam nga daana ma tëggal bëreel naa ko ma juumul deux combats ma trois combats mais nag maa ngi koy wax mu ñëwaat vraiment di ñaanal promoteur yëpp yàlla defal leen jàmm. vraiment kontaan nan bu baax yow it Badou Mbaye nit ku baax nga bon dañuy déggante lu bëri vraiment ñoo ngi lay ñaanal yow it yàlla defal la jàmm xam nga ba nga dem ba yor sa yëfi bopp ñëpp di la dégg fu ne. di ñaanal tamit sa maan Bécaye vraiment li muy def nice na trop di am mbégte ah, si waa Thiaroye yi ñëpp muy fans yeeg supporter rek maa ngi béggee ñëpp su waa écurie di di di remercier nag sama waa staff muy nga xam te ni mooy Essa Marière ak ki ni mooy Bomako vraiment ñoo ñëw ma seen fay di gërëm nag asantal beseef bu baax a baax kooku vraiment sama lépp la waaw di gërëm nag xalifa Sall Sall et frère kooku maa ngi sant bu baax a baax di sant nag international muy Mbaye Mbaye Diagne maa ngi koy sant bu baax asalem maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment kontaan naa bu baax di gërëm nag waa waa waa Tiwaawan waa Tiwaawan waa waa waa waa Tiwaawan vraiment man aw ma seen fay quoi dañ may taxaw bu baax a baax vraiment kontaan naa bu baax jaajëf. aja jërëjëf kooku moom mooy le grand champion Ameth Deme muy le gladiateur moom moo ko wax eh, nee na mu ngi waajal nag retour bu am solo eh, waxtaanee nañ lu bari ci wàll làmb nee na ibbi na ay buntam nag eh, pour promoteur yëpp nee may sens Eh, kon nag promoteurs yi Alburax Events Bool production Assane Ndiaye ah Gaston production nañu ñëw kii ci làmb la bokk te làmb da ci am cër kon na gaay yi ñëw eh, daaxul benn combat nee na pare na pour bëre ak ñëpp kon na gars yi ñëw ibi bunte yi mu bëre ndax moom daa bokk ci làmb eh, bu ko defee nag ñu nuyuwaat ñi nga xam ñuy saan Baol TV yëpp yëpp yëpp ndax yéen yéenay doole ji Baol TV lu mu am rek yéen la kon ñu ngeen leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàcc waay bu baax waaye nag di jaajëfal bekaay bi nga xam ne nii lépp lu rafet rek moom la Bécaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la jox sa wàcci waay bu baax di la ñanal eh, ñu dégg la fépp ci baa ngi siyaare bu jeexee jena waaye Kara Design Kara Design bi nga xam ne nii moom moo ma defal di set bi maa ngi koy kontaane bu baax borom kër Mbaye Fall Kara yàlla na si jàmm yàgg maa ngi lay bégg bu baax a baax a baax ku bëgg lu baax rek demal kër Mbaye Fall Kara Design moom eh, amul wax mooy loolu alaaji Mbay Cuun maa ngi lay bu baax a baax a baax di la jox sa waay bu baax eh, di la jaajëfal bu baax a baax a baax a baax moo moo na mi def fleur Mbay Gay maa lay nuyu bu baax ah ba Badou mbay mu ndaw séeri màgget sama yaay Biége Sarr maa ngi lay nii bu baax di la jaajëfal di nuyu waa kër gi yëpp Aram Ndiaye maa ngi lay bégg bu baax a baax sama yaay booy lépp yow la yaay comme ni ko waaj waxee yow teel tànk yi rek waaw yow teel cruise gi rek lépp dina ñëw bu soobee yàlla Baye Fall baa ngi siyaare bu jeexee jeex na